gis naa sax ñoo xam ne dañuy ñëw di wute ëlbati samay wax di wax ne Cheikh Mbacke dafa wax ne maanaam ku dul jullit su deewee maanaam jullit mën na koo ñaanal loolu nag yaakaar naa kenn du ko fekk man ci sama vidéo ndax man du ma wax lu ma amul preuve li ma wax mu leer mooy kii jullit ak ku dul jullit ñoo ci bokk yem ku ci dee ku ne say jëf dog na kii jullit ak ku dul jullit ñoo ci bokk yem ku ci dee ay jëfam dog na lañ leen daan gëmloo ci loolu ba tax ngeen di organiser ay ñaanu. ñetti fan ñaanu juróom-ñetti fan ñaanu ñeent fukki fan ay ay nuñ koy waxee ay xam nuñ koy waxee ay ñaan annuel yooyu ñuy def noonu lañ leen gëmloo woon moo ko jur amul njëriñ nit ki su deewee ay jëfam dog na la mu jiital képp mooy li koy jëriñ ndax loolu lañ koy bindal yàlla moo ne inna nahnu nuxyil mawta wa naktubu ma xaddamu wa aathaarahum وكل شيء احصيناه في امام مبين يالا موني نون نوي دوندال كو دي تي دا نيو بيند لامو جيتال اك جيختالام نيت كي لامو جيتال لا نكوي بيندال اك جيختالام لين دا جيفال سا غيناو كين دلو كو بيندال اي داماي اجالي سما يايا داما كوي جولي لا امون جيري ميرو نيت دي ني نان اي نانكوي نيانال نانكو فيدا اوك نانكو نانغام yóbbu ko fenn doo yim fekk fenn fu yàlla jàngale yooyu ci daaw mooy comme jotu déedéet nit ki yow yaay jëf loo xam ne moo lay musal ëllëg yàlla li mu wax loolu da ko wax ay yooni yoon yoon ci alquran in nañ ci ay exemple lu mel ni wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yuraa thumma yujzaahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbika al muntaha su ngeen demee ci kullu nafsin yi nekk ci alquran yàlla wax na ay yoon kullu nafsin bima kasabat rahina al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma inna allaha sarihul hisab yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا amadan baida ba واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يب أي آية تلين رجلتنك ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون نحن xam ne nit ki ëllëg دم mu jëf lañ koy dem àjjana sax say jëfa la fay ñu naan déet comme li ñuy wax naan ay maa leen yàlla ki mu yërëm mooy ki mu gindi loolu am na vidéo bu nekk ci chaîne bi ci loolu lay wax soo demee ci alxuraan di ngeen fekk yàlla di wax loolu udxulul jannata bi maa kuntum taamaloon tàbbi leen àjjana ci li nga xam ne moom ngeen nekkoon di ko jëf lu leer la ay wax yu leer yoo xam ne alxuraan la yow yaay dem gisal ko sa bopp xamal ko sa bopp du ay mbiru werante ñun taluñu werante lépp lu ñuy wax preuve bi lañuy indi teg ko bu nekk lu leer kon kii jullit ak ku dul ñoo ci bokk yem ba ngay dund loo mën a jëf ci lu baax jëf ko ndax loolu képp lay jëriñ nekkul li ngay defal ginnaaw gi nekkul li ngay fàggul ginnaaw gi li nga fàggu li nga jëf loolu moo lay jëriñ ëllëg loolu la yàlla jàngale mu nekk lu leer